ci la dimbale bépp yonentu ak bépp wàlliyu ci tàmbali jamono ba ci mujj ak jamono maa nusira nabiyun wala waliyun illa biha amul benn yonentu amul benn wàlliyu lu may ci baat yooyu lañ ko dimbale ibrahima alayhi salaam nga xamee ne dañ ko dugal ci safara si jibril moo ko feeñu ne ko ndax am nga soxla mu ne soxla bu jëm ci yow aw ma ah doo laaj am nga soxla ci sa borom yàlla mu ne ko waaw ah doo laaj sa borom mu génnee la ci safara si ibrahim ne ko ilmuhu bi xaali yakfini an suali yàlla kay eh, xam na xam gi ma xam xam gim xam suma xaal doy na ma walis man ma koy laaj <sighs> loolu mooy wàkkeelu ci yàlla dëgg-dëgg waaye foofu la waxee xasbunallahu ni'mal wakil mu ngi ci hadis bu wér ne ibrahima bañ ko dugalee ci safara si xasbunallahu ni'mal wakil moom la wax ba mu waxee loolu ci la yàlla wax safara si qul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla ne safara si nekkal di sedd nekk di sedd bu ànd ak jàmm boo waxoon ne nekkal di sedd rek baay mu ne bu ne nekkal di sedd rek te waxut wa salaaman kon sedd bi mën naa rool Ibrahim ndax gis nañ sedd muy rey nit ñi waaye pardon wa salaaman la wax loolu yëpp nag mu ko amee ci ba mu wàkkeeloo ci yàlla wax xasbunallah wa ni'mal wakiil saxaaba yonent bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom tim ba di noon yi di jax-jaxal seytaane bugu leen a ragalloo yi yàlla ni wax mooy a zaadahum imaanan yàlla dolli leen gëm yàlla wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil kon yonent bi xasbuna allah wa ni'mal wakil moom la wax ak saxaabaam yi ci bés boobu lan lañ lan lañ ci jëlee mooy ñi dellu ci ngëneel bu ci yàlla xéewal bu tukkee ci yàlla ak ngëneel te benn xay laalu leen benn xay laalu leen na siru yi nga gis yëpp tur si ñoo ko tarjama maanaam ay ilham la yu leen yàlla jox ñi tarjama waaye xasbunallahu wa ni'mal wakiil moom ni muy def yàlla ci boppam moo ko tarjamaal boppam ndax lan la bañ ko waxee luñ am fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lañ yem sa sumsu wa tabaaw ridwan allahi am ngëneel may xéewal ak ngëneel gu tukkee ci yàlla ak mucc benn xay laalu leen ñu topp ngërmaane yàlla kooku moom yàlla moo ko tarjamaal boppam yàlla moo wax li muy jëriñ motax tax kenn ci salihin dafa wax ne mu ngi heemu ci koo xam ne dañ koo tëkku mu tiit te fekk moom mu ngi xam xasbunallah wa ni'mal wakiil xam li yàlla wax ñaw xasbunallah wa ni'mal wakiil fañ mujj mooy fan xalabu bi ni'mati min allah wa fadlin la ñuy sa suusu mu ne tim xéemu na ci koo xam ne njàqare dafa wàcc ci moom ak jaaxle tam xam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin bi nga xam ne moom la yunusa ala nabiina wa alayhi salaam wax bañ ko dugale ci géej gi ci ci te jën wi wann ko la la ci yàlla teg nga dégg ko ne ba mu ko waxee lu ci yàlla teg fa sajab naa lahu wa najaynaahu min alxam mi ñu nangul ko ñaaram musal ko ci njàqare moo tax xéemu na ku am njàqare te xam baat boobu te waxoo ko mu ngi xéemu ci koo xam ne nii dañ koo tëkku ne dañ koo rey te mu xam wa ufawidu amri ila allahi inna allaha bil ibad te xam lu ci yàlla teg mooy fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru yàlla fegal ko eh, ñaawteeg seeni pexe mujj firawna ak ñoñom mujj ci mbugal bu metti ku xam baat boobu tañ tëkku ko rey te mënu koo wax te xam la ci yàlla teg bàyyi mu ne nag baat bii muy xasbunallahu wa ni'mal wakiil képp ku ko takkoo limi xarafam moy ñenti témèr ak juróom fukk suba ngon dara du la lor ci mindeef yàlla yi برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان